rek de bu waaw dégg waaw waaw dégg dégg dégg dégg dégg dégg ñëwal jaay teg rek teg teg rek teg kaay teg rek teg rek teg rek teg caas gi ta gi teg rek teg rek gi teg waaw la ilaha illallah eh. xale ba tus ko waay kay personne lañ leen soxlaa nag kaay leen ay millions yu bari lañ leen jox ñëw leen bu ñëwee nii. aja kuy njëkkoon ñu naan drapeau bu buuse Ketchup la. ah buuse Ketchup. léegi ñaari mbëri foog ñu yëngal buuse ñëw ah. yëngal. Ah. foog nga jël la pare buuse ñëw yëngal. ah. ah gaan wan iso no ay xaaba birim. dara du xew man zooka laa. damay bañ ba xëy de du ma toog si ginnaaw ko yàlla Soké ngay bëreel nag ñu ngi lay nuyu. Ah, la naan kanam bii nii maa ko ne ko sa kanam bi di mel ni rukk mu jar ko mu naan ay maam du yoon daa juum daa sol ndox. nee na maa sol ndox. loolu am na lay laaj fàllu moo ngi nooy. tamit nañ waxante dëgg. ñëpp xam ne googu ah. koofu moo fecc ay ah, sama gaay fecc si de koofu moo fecc sama fecc laa fecc fecc Laurent Ndiago waaw kay voilà je ne plie au grand waaye kii lay yaram di faa góor waaw noonu la demee parce non jarul ko. doora doora doora. feegi ñu ngi doora da ngay yëpp doora. soo dooree ma fay la ma fay la fay. su dooree ma fay ba sama xaar. la fay set dina la tur doo fay. fal su dooree li ma am lépp. déggoo ma de la fay set dina la tur doo fay. ay boy bu ma la door. laa leen rek laa dooree caam ay ñoom caam yéema leen respecté baay respecté journaliste. wax day rafet xam nga. kii wax day rafet àdduna. deret day circulé mais du ma juum. damay wax di neexal pour Lamine Lamine xam nga ma wax damay ñëw. xam nga damay ñëw xam nga dañ ma wax. xam nga laa damay ñëw xam nga dañ ma wax xam nga lan lay def. kii su ma ko nee desit hôpital moom laa waxal kenn ñaanul yàlla nekk hôpital. mu naan ne yërëm ñu nekk hôpital. waaw kenn bëggul ku mais imagine toi ay nit feebar naa la kii mooy desit hôpital. ñu tëj la micro nga naan ne ay desit hôpital day faa góor bisaab da day yëbb. kii lii rek la am si laamu ci xas ma. boys ba kii déglu ma la woy boy doo bandi doo tërëm boy raw kumis doo bandi raw kumis doo bandi doo tërëm Etienne doomu ñaari central Christophe la ñaan ni ko foo xam demal yaa tay ko ma yow ay teesal yow du ma sa morom ak yow sama dixième kay noonu la demee nag dama xamal lu bari yee man ngeen faral bu leen bu leen doon nëbbu eh na la ñëpp faral non leen faral leen ko billaahi kii naa ñëw rek jàpp ko daal waaye kii man ma paree damay jox ma ñibbi dégool ma la maa la sama tax doon am fi marié yàggul noonu la demee kii Lamine wax ji du bëri man kii. man kii aw ma lenn lu may wax ci moom dafa sëkk daaw fi mbër. booy la daan tokki mu daan mbëru TikTok la. mbëru kii la jour la soxor. jour la daan. ñebe jàddu ñëpp. dam yow ñëpp dam yow ñëpp xaaral ñoom ba ñuy bëre jamono ñoom Ndiala Mbaye la ñu yàgg yooyu man néew ma si loolu noonu. Ah. jamono 2022 la ñuy wax. Etienne ah. borom alliance dundal gaan borom lu ne pax. man booy bi man booy bi ma yónni yàlla xam nga ba pare léegi ma tey ñu yónni ko kii yàgg na de. du ma ko song dama koy dóor ba mu tëdd. su ma ko song yàlla naa kii wax a yàlla bind du ma la song. dafa kii boo na dóor di may wax ci moom aw ma lu may wax a moom ay boo xalaale ay boo xalaale na jël ki lay comédie. versus avec moi. xam nga vers. yow doxoo dof dof loo ku dof. yow feegi yo koloni yaasi yo sama nijaay naan ma papa kendi monik pekali eh, mais gone yi dañ maa naan anoo ma gis ka maa ñaa mu pa képp yaay ndam kii papa ah, kii dafa bëgg micro bàyyi ko dama koy bàyyi ah tous tapet nga waaw yolo yolo demee na kii du bandi waaw ah, du ma yow ah, mettre gars yi respect Etienne ngi naa la mettre en respect yow comment dañ see woote loo ko la saf saf lu ma def ta doo ko dem jëriñ ki bentali booy li waaw tapper nga. sa jakarta dama ko jëli woon na leen. bu leen lii nii. dama demee nag newoon na leen nga woote su ma woote booy baaxul ci yow. Eh, ma daw loolu nag kii ma eh, fenn li oh. xam nga sa sa jakarta dama la jëli ko kii bi interdit. léegi léegi taw sabar combat bi Lamine man damay woote man Lamine nekkul fii Lamine ah, ah, kii dafa bëgg micro man nekkul fii di waxante ak moom di nuyu waa Guédiawaye di woo autorité yi di woo ku ci mel ne Ahmed Aïdara Ahmed eh, eh, Aïdara man kay woo ci boppam ma duma la dóor man damaa xam réellement lamb règlement lamb dama koo xam man du ma def lu ma nit di yebee xam nga man kii yëfu kii kii booy la man mënu ma yëngu nag di woo Ahmed Aïdara sama nekk comédien na ñëw ñu xeex naa ko duma mbaa kan duma naa ko na ñëw ñu xeex man li may bëre ñëpp li leen doon def man bëre de kaay xeex naa ko li leen doon def bi mbara ju bilaay kii liggéeyul daan naan ay doom su ma liggéeyul doom yàlla na ma daan xalaatul ma ko xam nga kii ma jaral lool kii di sëdd buuse bu baax moom paa la mag la buuse mais bu ko dara jaral naan doom di sëdd buuse bu baax a baax a baax di sëdd booyee mais di sëdd Omar Bass ay ndaw laay ànd Omar Bass maa koy sëdd bu baax di ko woo ci combat loolu ndam la xam nga di ci woo waa Guèye di ci woo ku ci mel ni Cheikh Koulade ak jabaram Zara maa ngi koy woo ci maa ngi woo ci bu baax a baax. waaw ku ci mel tamit xam nga Boos Baara Boos Baara maa ngi koy sant ba daal lii ma sol moo ma jox. lii ma sol ku si mel ni Mahmoud maa ngi sa borom Medina. bare maa ngi nii. sa bayaan yi sama na ñoom ñaar ñu taxaw di wax rek moo taxoon sax waaye rek kii di wax kii di wax mais ñaan ñi damay gis sama bopp si ñoom xam nga ay xale lañ nekk ci làmb di neexal Sénégal yëpp bëgg leen li ma leen di lancé rek mooy ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañ ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañ samay xarit amul fenn te du ma dépassé du ma xeex du saaga du xuloo te ñoom ñaar mën nañ am lu ne ci làmb parce que nit ñi bëgg nañ leen seen combat bi mën nañ ci am lu ne avant ak après kon bu ñu yàq loolu ñoom ñaar ñëpp ah man nag samay rakk lañ moom ko man bu la affaire. làkk doom door doom la déedéet. mais man coojubul maa ngi ànd ak a yàlla. kii maa moom dëgg la. yow da ngay jaxase seytaanu la. sëñ Fallou rek. seytaanu day jaxase. sëñ Fallou rek. drapeau bi. billaay wala daanaka bi nga doon tuddee ku dëkk jàmm nga damay bañ. booy lii kii de ko tuddee drapeau rek. non bu wàllu rek am na loolu pour këram su loolu. non man moom. non dëgg la moom lañ tuddee drapeau na ko ñaanal ndam. ah na ko ñaanal loolu yëpp yàlla na na ma yàlla suturaal yaa ngi xam nga fu may waxee. yow da nga yëngu mais ma bëri ma neutre. non ay affaire bu ñu tëjee barrière naa leen daal duma fal. bu ñu tëjee barrière la fekkee du ma tànk yàlla. maa fe balaa neex dëgg saf dëgg. alxuraan maa fe balaa neex dëgg saf dëgg. yàlla noppi na sa lees yoxul man mi dawul sama yaram. tapet nga. yee man damaa yàgg a wéer. tapet tiktok la da ngay wax rek. Bamba man aw ma jàppal gi nga man. ay xale ay buuju feeraay moo dee ko sama dixième combat ay buuju feeraay bi may fay ko yéene kay ci ko ko sant bu baax ci der sama ay sant mo mo dama xale yi ndaw leeru alxuraan yee di sant Liss Ndiago ak waa jàmm gën yëpp li nga yëpp ay tapet la yaa ngi sant képp ku dëkk jàmm di jégalu ñëpp nag fekkee damaa jum xale laa. ma tegale ay yére di xanjo maa ñëpp. maa sa tegale yére yi maa tegale yére. ma tegale ah, wuyu si tax benn. fii nii tappa teg nga yoroon. naka nga nar a jàppale ñaar mbaar la sol. mooy sama ñaar ñëpp jàppale ñu ko. kii sama rakk la. côté bii côté bii leen nar a jàppale. waaw dinaa leen jàppale ñoom ñaar ñëpp côté bii mais du bokk. waaw comme ni may bee di may kii bi. ñoom ñaar ñëpp samay rakk eh. kii sama rakk kii waroon ma jàppale. am na. yow na nga sarax damay yaru boy du ma soog morom doo leen paas ñu aja buuse da ngay jox ko bay bi paas yow na ci wér wér wér ay waay la ra xaalis rek la bëgg ne bëgg nga battre ko wér wér